Oumy Salamata Niang. kan moo la invité si événement bi. tonton Bamba. tonton Bamba moo la invité si oui. Euh, ban sentiment nga am en tant que xale yi a bokk si projet bi nga xam ne c'est pour 2050. je suis contente hyper même je suis ravie d'être ici et de participer à à cet événement vraiment je suis trop contente. de quelle classe.

c'était difficile mais jar na ko. <laughs> parce que j'étais tente j'étais contente j'étais ravie de faire ça et aussi ça m'a plu. oui hmm. parce que mon père parce que mon père il est politicien et il et il est toujours avec Ousmane Sonko. Ah, ah. José il est gentil te xam naa ne mën na yor réew mi. am nga donc ci projet bi. waaw. Ah, ok. alors tey lan ngay wax tey sa xarit yi tey ñi nga xam ne tey yéen a maase ak projet bi nga xamante ne tey yow joué nga si pour ëllëg boo màggee. su ma màggee xam naa ne projet bi dina feeñ ba bu may màgg. ba pare mes amis aussi je les remercie parce qu'ils ont toujours été là pour moi. Merci beaucoup. Merci. Allez, bonne chance. Euh, le grand, Mohamed. Allez, merci Mohamed, viens. Mohamed, viens Mohamed. Mohamed. Mohamed, comment vous allez? Vous euh, vous appelez comment? Moi, je m'appelle Mohamed. Euh, vous êtes Moi, je je, je suis de, la classe du CM2. Vous habitez où? J'habite. nga dëkk. J'habite à Pikine. Pikine euh, la invité kan moo la invité ci projet bi. Euh, bi mu invité. Euh, tonton. nga participer ci projet bi. waaw kontaan naa eh, xam nga lan mooy projet bi. référentiel bi xam nga ko pour deux mille cinquante xam nga ko. Eh, d'accord mais tey sa xarit yi lan nga leen di wax sa waa kër say mbokk say am di jàmm parce que tey sénégalais yëpp ñu la doon seetaan sinon àddina bi yëpp. waaw damay wax rek ni kon kontaan rek di li ma doon seetaan te maa leen eh, ngi remercier waaw nañu arranger quelques mots yow en tant que père euh, voilà yow yaay yow yaay yow euh, yaay présenté wu d'abord. waaw euh, Mohamed Niang euh, responsable politique au niveau Pikine Est donc euh, en même temps nekk comment dire producteur bi nga xamante ni bon en fait le projet ça a été vraiment un plaisir d'abord que mu présenter ko parce que c'était une vision on nous a demandé vraiment de faire vraiment les scénarios possibles et que comme que image mooy gën a wax et que ça regroupe des générations donc on a jugé nécessaire de faire benn conception boo xamante ni il y aura vraiment les générations représentées ñi nga xamante ni li ñuy defar nii tey tey tey tey pour ñoom la ëllëg donc euh, vraiment mu nekk scénario boo xamante ni scénario bu am euh, doole la donc mu am fierté aussi mu présenté xale bi nga xamante ni sama doom la mu def euh, vraiment benn illustration boo xamante ni ça a été vraiment par tout le monde donc loolu fierté la waaw bon c'est c'est à travers benn maison de production que je salue au passage Kuro Production euh, une maison de production très sérieuse bi nga xam te ne day impliqué wu vraiment ci production yu bëree bëri donc quand ils ont fait le casting euh, vous-même vous pouvez rendre compte que euh, elle a su vraiment intégrer ak euh, vision et puis bon c'est quelqu'un boo xam te ni tey mënoon répondre ak li nga xam te ne moom lañ bëggoon donc effectivement après on nous a appelé dañu vraiment xale bi Euh, concept yi maîtriser na ko donc euh, mën nañ compter ci moom pour que mu ñëw euh, def li nga xam te ne mooy film bi war a représenter vraiment visualiser le projet bi nga xam te ne moom lañ bëgg référentiel 2050 bi. ban sentiment nga en tant que père sa doom bokk ci projet bu toll nii parce que histoire da koy bind aussi. waaw fierté fierté vraiment c'est une très grande fierté vraiment boo xamante ni moom dès l'annonce ça a été une fierté pour sa maman d'abord pour ñun ñi nga xam ne bon ñu tamit ñooy euh, dañuy yëngatu si si si si si ci euh, euh, comment si projet bi donc quand on nous a annoncé moom moo koy def vraiment ça a été une très grande fierté vraiment tamit ñu si remercier ñëpp ñi nga xam ne ils ont fait confiance et que vraiment mu aboutir li nga xam ne tey moom moo waral tey ñu ñëw fi tey. ëllëg di nga am loo mën a nettali sa doom sinon sa doom ëllëg dina a. waaw certainement bon l'histoire retiendra que ni Euh, li nga xamante ni tey fii lañ ko indee tey euh, projet bi mu nekkoon loo xam ne dañ ko doon wax depuis des années et des années et des années tey lancement bi euh, moom mu ñëw participer si l'histoire retiendra ça et que ñi ñaan yàlla rek lépp li nga xam ne moom lañ si bëgg mu am ko comme ça mu nekk la télé boo xam ne nekk bu rafet bu rafet lay doon merci merci beaucoup